programme exceptionnel bu ñuy amal lundi 30 décembre 2019 à N Sport mi xamé amal cérémonie de remise de ballon d'or fële nga xamé ni modi Sedaf lundi 30 décembre dinañu joxé trophée meilleur entraîneur meilleur buteur équipe type zone 2A ak zone 2B ce sera sous le parrainage de monsieur Abdul Aziz Ley Koko moy président conseil communal de la jeunesse bu mexé ak monsieur Lamine Mbaye président zone 2A ak monsieur Madiop président zone 2B ñu